Pape Ibrahima Senghor euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi di fay. yow bokk nga ci euh, MONCAP mouvement des cadre bu parti PASTEF la ñuy njëkk dooree waxtaan bi itam Pape Ibrahima Senghor bokk na ci li nga xam ni moo jëm ci li ñuy waxee nuance de controverse maanaam polémique bi bari na lool ci li nga xam ne moo jëm ci le fait que ñu déjëti euh, docteur Cheikh Dieng ca euh, ONAS ONAS googile xam nga ni coow li bari na loolu moom sax génn na daal di amal ab conférence de presse daal di addu ci li nga xam ne moo jëm ci mbirum. Euh, limogeage am bi euh, beneen bi itam coowal véhicule euh, gis nga ni ba mu noppee itam ki nga xam ne mooy directeur bi ñu fal yees daal di indi ab communiqué demantir li nga xam ni itam moo jëm ci wàllu wi ni mel mais ñu ci bari dañu jàpp ni kàddu yi mu yëkkati yëpp da ko teg te ndoddal ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane Dièye mu nekkoon patron jëruñ gi ñu dénk wàllum assainissement mbir mi ni mel bari na communiqué sur communiqué bataille de communication déjà yow xam tey bokk nga Moncap bokk itam ci parti Pastef coow lii euh, lan moo ci sa xalaat. waaw man dama jàpp ne coow warul am si situation yi mel nii ndax lan dañuy faral di wax naan le président de la république moom mooy nome au poste civil et militaire donc moom mooy xool si coobareem ak si xool si appréciation bi mu am ne diwkat war naa ko si place bi pour mu doxalal ma li ma bëgg si secteur bi nii moom moo jëloon décret en avril deux mille vingt quatre nommé docteur Cheikh Dieng directeur général ONAS moom moo jëlaat décret en août 2024 di jëlee fa docteur Cheikh Dieng donc pour man loolu amul benn problème bu si waram parce que état mooy doxee noonu république mooy doxee noonu maintenant li si am li si bees mooy docteur Cheikh Dieng gis nañ ko mu wax ne li ko dal yëpp docteur Cheikh Tidiane Dieng moo ko ko teg euh, di génne ay communiqué mais tamit gis nañ que ne ONAS nga xam ne mooy direction direction générale bi nga xam ne fa la nekkoon te te ji keneen nekk fa génn na ay benn communiqué pour weddi li docteur Cheikh Dieng wax yëpp man nag bon pour l'instant comme awma si beneen élément d'appréciation li ma mën a wax mooy. Mhm. man daal maa ngi taxaw ni di xaar di seetaan jàppandegum si li xam ne direction générale bi nga xam ne mooy voie officielle bi li wax ñu jàpp si loolu. mais li si mën am rek te li ma bëgg parce que comme dañoo wax jub jubal ak jubanti dama jàpp que ne en tant que ministre de la république ki nga xam ne muy docteur Cheikh Tidiane Dièye xam naa xam naa xam jubam Euh, gëm-gëmam euh, xam vraiment que nekk comme comme ni ñu ko waxee c'est pas quelqu'un un homme du pouvoir nekkul xam dafa bëgg nguur vraiment am naa yaakaar que ni incha allah si bu yàggul dara dina génn leeral askan wi si li tuuma yi yi nga xam ne teg nañ ko docteur Cheikh teg na ko si kawam muy ay tuuma yu garaaw a garaaw a garaaw a parce que comme ñun dañoo oote jub jubal jubanti dañoo ote leeral dañoo oote dox. ci ci vraiment lépp loo xam ne dina leer am na yaakaar ne dina ko def ci bu yàggu da parce que tamit si loolu lañ koy xaar population bi soxla na ko peuple bi soxla na ko Sénégal soxla nañ ñu xam exactement lan ak lan moo ci am te bu fekke nag malheureusement moom li li li docteur Cheikh Dieng wax ne noonu la demee mais su boobaa nag am naa yaakaar ne président de la République ak premier Ousmane Sonko dinañ jël les mesures nécessaires pour que plus jamais mm, parce que ñu ci bari nee nañ coowal ñaari cheikh yi moom wax dëgg yàlla mbir mi dafa war a leer waaye ak lu mu munti leer. il faut mu leer parce que dafa war a leer te am nañ yaakaar dina leer parce que ñun moom comme li ma ko waxee. Mm-hmm. jub jubal jubati la ñu oote. moom ngeen woote mm-hmm. euh, beneen bi bokk na ci tey est-ce que li ni mel euh, indiwul benn euh, jafe-jafe ci biir coalition jomaay président wala yow gisoon noonu. non amuloo am munoo am jafe-jafe parce que xam nga coalition Diomaye Président du coalition ñaar maa ñetti parti du coalition ñaar maa ñetti ñetti leader coalition la boo xam ne y a plus de deux cents partis mais euh, benn problème bi si am si comme ni nga waxee entre ñaari cheikh yooyu noonu mënul créer malaise si si si si coalition bi donc pour man amul benn malaise boo xam ne am na si coalition Diomaye Président Diomaye Président en tant que coalition mi ngi fonctionne ni mu a fonctionner ak euh, la mi ngi koy mi ngi mi ngi siy def li si war ak tous les autres membres de la coalition donc amul benn problème a aucun malaise ici si coalition pour l'instant mm, d' bu amul malaise itam jafe-jafe ma ngay am ca port autonome bu Dakar mm, euh, ma ñëw jafe-jafe mi ngay am port autonome bu Dakar ci jamono jooju itam gis nañ intersyndical Pape Ibrahima Senghor mi génn euh, daal di teg ay euh, tuuma ci ki nga xam ni itam moo di directeur bu yees bi di Waly Diouf Bodian wala Diouf Bodian itam ci communiqué bi nga xam ni service communication daal indi ngir weddi di ni mel dañu jàpp ni ñoom ay nit ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw kon euh, sosolante yi mi ngi bëgg a bari waaw xam nga bon peut-être mën nañu wax ne peut-être mënut a ñàkk alors li xew Port autonome Dakar lu yomb la lan moo xew Port autonome Dakar dafa am dañu am directeur bu bees am njiit bu bees bi amee njiit bu bees bi mu ñëwee mu demande à ce que ñu def audit saytu xool naka lañuy ñu yore woon kër googu noonu démb ak barki démb donc bu ñu xamee naka lañ koy yoree benn su boobaa nag bu dee jàpp nañu na ay ay mesures yoo xam ne war nañ ko jël pour jubbanti pour corriger subaa ñu xam yan mos yan mesures la ñu war a jël ak si yan levier la ñu war a appuyer wu. alors euh, direction bu pôle autonome Dakar génn na leeral la wax na ne amul benn licenciement boo am li am lan la mooy ay contrat yoo xam ne yu amoon app app bi jot na bi app bi jotee nag euh, donc ñun jàpp nañ ne pour l'instant waraguñ ko renouveler tant pare parewuñ audit bi incha allah buñ pare audit bi bu dee jàpp nañ ne am nañ soxla. am nañ besoin vraiment pour renouveler yenn contrat incha allah nañ ko renouveler bu dee amuñ besoin pour renouveler yenn contrat yi nag su boobaa duñ ko renouveler loolu moo am port autonome de Dakar loolu moo am LONASE moo am feneen ak feneen voilà donc loolu moo si am maintenant euh, comme ni may wax rek xam nga boo ñëwee si bërëb bu bees euh, euh, ñëw yow ak ñun dañoo ñëw indi jubaleen doxalin bu bees muy jub jubal jubanti ñu xam ne am na lu fi nekkoon dem ak barki démb loo xam fi nekkoon mais voilà ñi xam ne nag dañoo jàpp dañoo jàpp que ni ñoom seen intérêt dafa menacé wu moo tax il faut ñu yëngatu il faut ñu yooxu il faut ñu ñu wax waaye li si mu am ba des rek mooy incha allah comme ni ma ko waxee woon lépp loo xam ne mooy mesure boo xam ne war nañ ko jël pour jubanti pour corriger dinañ ko jël voilà loolu kese moo si am mais amul benn problème par rapport à ça ça c'est c'est valable port moo valable lonage moo valable feneen ak feneen ak feneen maintenant dafa fekk ne lii si port ak li si lonage peut-être que ñooñu ñoo ëpp li ñuy jël si si si nit ah euh, parce que foofu li fa seetloon mooy euh, ñu bëri fa lañ doon utiliser pour def pour caser seen personnel politique loolu moo war a coow li bëri nii yëpp parce que loolu lool moo indi coow li. mais vraiment amul benn problème par rapport à euh, looy tontu ci ñi ngi naan ba ngeen ñëwee ba tey da ngeen ubbi front yu bari ci li nga xam ne doxalinu réew mi ba défi bi nee ni xaar itam bëri na lool itam Pape Ibrahima Senghor. alors c'est pas que dañu ubbi front yu bëri. ubbiñ front yu bëri de c'est que dañoo songandoor problème yu bëri pour régler leen loolu moo tax xam nga Sénégal di instant yi dafa nekk comme mu màgget foo laal muy métti donc ñun bi ñu ñëwee dañoo ñëw song problème yëpp maintenant peut-être que problème yi ñu songandoor moo bëri ñoom seen bët moo tax ku si nekk di yooxu parce que ku si nekk problème boo song am ay intérêt jàmbur ay intérêt jàmbur yoo yoo laal wala ñi nga xam ne dañuy sentir que seen intérêt dafa menacé wu parce si nguur yi yi njëkk yi fi nekkoon privilège yooyu lañ lañ amatul wala gis nañ que privilège yooyu noonu ñun buñ continuer day ñàkk seen privilège yooyu moo tax ñuy yuuxu rek mais amul benn amul ñun nekk fi pour ubbi ay front nekk fi pour xeex ak kenn dañoo fal yoon yónni ñu yàkkamti ñu pour ñu ñu jaamu askanu sénégalais. pour ñu ñu ñu ñu fexe ñu ñu defee ba Sénégal nekk un pays développé donc si loolu la ñuy si loolu la ñuy la ñuy dox voilà loolu moo tax mais vraiment ñun lu xeexuñu xulóoguñu ubbiwuñu front parce que amuñu sa jot ubbi front li ñu war te si li si li xam ne moom si la si la président Bassirou Diomaye Faye nekk li nga si la premier Ousmane Seck Ousmane Sonko nekk mooy lan mooy taxaw askan wi jaamu soxla askan wi te loolu nag bu jaree ubbi dix mille francs dinañ ubbi dix mille francs oh. mais eh, xam nañ li li tax ñu fal ñu xam nañ li ñuy doyee te li ñu dee si loolu la ñuy yëngatu. d' di tax ñu fal leen itam war na tax ba ngeen mën a dem assemblée nationale assemblée nationale googule ngir def seen déclaration de politique générale modifié nañ li nga xam ne moo jëm ci règlement intérieur bi léegi nag élimaanu jëwriñ yi la ñuy xaar mu dem fa. waaw xam nga assemblée assemblée nationale moom euh, li li li li premier Ousmane Sonko li mu leen waxoon démb bakki démb bu ko defoon kon tey jii du ñu egsi li honorable ah donc mais comme bañ leen ko waxee ñoom dañuy jàppoon que ne ñun ay pour xeex la ou bien ñoom ñu ñu ñu jiital seen activité politique yaakaar que ne loolu la mais xam nga da réew dina toll foo xam ne dañu politique jël politique bi teg ko de côté vraiment liggéey te si loolu la ñu oote assemblée nationale bi mais li am des mooy man li ma gëm man personnellement mooy man dama jàpp que ne premier Ousmane Sonko warul dem assemblée nationale defi déclaration de politique générale. waaw lu tax si assemblée nationale bii nii nekk nekk fi nekk fi tey. parce que dama jàppe assemblée nationale bii nii man li may xaar di ko ñaan président Bassirou Diomaye Faye mooy mu dissoudre assemblée nationale bi parce que assemblée nationale bi nekkul assemblée boo xam ne euh, méngoon na ak bëgg-bëgg askan Sénégal nekkul assemblée nationale boo xam ne euh, euh, coono Sénégal coono bu waa Sénégal si moom moom lay fexe nu mu ko fajee assemblée nationale bi ñi fi nekk ñan la mooy ñi nga xam ne seen bopp lañ fi nekkal mooy ñi nga xam ne li si ëpp si ñoom seen intérêt moom ñoo fi nekkal mooy ñi nga xam ne li liñ fi toogee lan la mooy intérêt Macky Sall te ñun nag comme ñun intérêt Sénégal moo ñu ñor comme ñun soxla Sénégal moo ñu ñor donc man li ma jàpp mooy assemblée nationale bi foo ñu dissoudre ko ñu am assemblée nationale boo xam ne dina méngoo ak ñu doxalee ko incha allah ñu avancé. donc man j'espère bien que premier Ousmane Sonko du dem du dem defi déclaration politique générale si kanamu assemblée nationale bi parce que assemblée nationale bi mérité premier Ousmane Sonko taxaw di def DPG si kanamam. waaw Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañ itam buñ ko tasee ñoom ñu ngi laat xool naka la ñuy boolee seen doole imposer li jëm ci wàllu cohabitation ci assemblée nationale. mais euh, Benno Bokk Yaakaar amatul Benno Bokk Yaakaar kan ma fa des bay wax naan euh, Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk euh, léegi APR kese la parce que boo fàtte ko Benno Bokk Yaakaar PS dem na AFP dem na. LD dem na ñoom ñu ak ñoom ñoo nekkoon locomotive euh, benn bokk yaakaar. mais officiel agul ne politique la hmm. dem nañ ñoo ñu instant yii nii waa PS ñu ngi fexe ñu ngi jubóo waatee seen biir ah AFP même chose LD même chose donc vraiment benn bokk yaakaar moom li fa des instant yi waa APR la te mi ngi tas donc benn bennoo tas yaakaar la gën a nuróol. parce que même APR sa ñoom seen biir ñu ngi sant ñi ngi am ay démissions yu bëri yuy dem donc vraiment ñoom bu ñu taxee waxtee ji nii. bu ñu amee demee élection suba ñoom ñooy gagné ñoom dañuy dañuy gént électeur di wax rek waaye xam nañ ne loolu mënut a nekk. donc vraiment pour man ça ça ne mérite pas un débat euh, te ñoom leer na ni incha suba suba bu ñu demaatee élection suba suba suba Sénégal askan Sénégal joxaan ñu majorité confortable bu gën a confortable sax bi ñu joxoon euh, si présidentielle 2024 bi parce que askan Sénégal ñooñu ñu dénk réew mi bëggu réforme yi xam ne ñun. proposé nañ leen ko ñu ñu ñu ñu exécuter réforme defar réforme yooyu noonu te xam nañ ne loolu mun a am pour mu mun a am il faut ñu jox ñu une majorité très confortable à la l'Assemblée nationale pour pouvoir apporter les réformes nécessaires et changer de façon systémique Sénégal bi nga xam ne ñun moom lañ bëgg a changer. Mm, ci waxtaan bu mujj bi laaj bu mujj bi bokk na ci accident yi Pape Ibrahima Senghor li ni mel ëlëm na nit ñi ba il faut que ñu ut ci ay solution li nga xam ne moo jëm ci nit ñi ñiy faatu ci l'accident yi bari na nees mën a def tey ngir wàññi li ni mel accident yi bari na lool. waaw man d' damay commencer vraiment jaal ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci accident yu bëri yi di ñaanal aussi ñi nga xam ne am nañ si ay gaañu gaañu yàlla fëgg seen bopp ci ni mu gën a gaawee ñu jóg ku ci nekk dellu sa njaboot euh, loolu mooy première première appréciation di ma ci am. deuxièmement euh, li ma ci mën a wax mooy euh, dama faral di wax damay faral di wax naan ñun nañ éviter di jël ay mesures dans l' émotion maanaam ne tëll rek ah ne ah nañ def lii ak lii donc dara bu amee dañoo war a toog ah xool lan moo ko waral pour mun a mun si apporter vraiment solution ak mesure yi nga xam ne jàpp nañu ba subaa dootu amati euh, bu ngeen fàttalikoo malheureusement euh, am na drame fi amoon muy accident bu amoon six kilos si même jour bi nguur fi nekkoon jël fi ay mesures yoo xam ne ba tey jii courage mesures yooyu ba léegi kenn appliqué wu ko y' a pas longtemps nag premier ministre Ousmane ko oote na conseil interministériel. bi xam ne dajale na ministre des transports dajale na yeneen ministères yu bëri ak les les acteurs du transport pour ñu waxtaanee problème mu accident yi xam ne am na si dëkk bi te problème yooyu comme man ñaari niveau la benn bi mooy ñun en tant que ñun ñoo usagers yi ñoo xam ne ñooy nekk si tali bi beneen bi mooy par rapport ak matériel roulant bi parce que te jii da ngay dox tali bi gis ay oto yoo xam ne am nañ cinquante ans am soixante ans yoo sax da nga naan ñii nañ la ba am visite technique beneen ñu ngi daw si tali bi loolu muy muy benn problème beneen problème bi nag mooy suñ comportement ñun si tali Euh, olof ñaar day faral di wax naan euh, tali yi xatul xol yi ñoo xat donc jàpp naa ne ñun ñi xam ne ñun ñooy utiliser tali bi. Mhm. am na comportement boo xam ne war nañ ko am. mooy lan mooy wàññi réewande gi si tali bi maa ngi jégalu si kàddu gi mais aussi mooy vraiment il faut ñu def formation chauffeurs yi ñiy utiliser tali bi il faut ñu leen di former ah à beaucoup de citoyenneté ñu xam ne tali bi vraiment ay nit lañ yëpp yëbuñ ay mala. et puis même mala sa boo ko yeboon am na noo war a doxalee am na war a yer tali vraiment daal ñu ngi leen di oote euh, ñu ñu ñu gën a am comportement citoyen pour accident yi mun a wàññeeku tali bi te am naa yaakaar ne buñ paree si euh, euh, assises yi mesure si assises yooyu noonu ñu xam ne ñu ngi koy ootee hmm. buñ sa paree bu soobee yàlla d'accord ak mesure yi si jël bu ko appliqué de façon efficace incha allah accident yi du ne dina jeex de waaye dina wàññeeku baax a baax a baax damay faral di may may ma si profité occasion bi. oui comme ñu ngi di di di waajal màggal gi. Mm-hmm. Euh, may gën a ñaaxaat euh, chauffeur si rek ñu daw ndànk ah, vraiment si tali bi euh, comme ça mën a yóbbu pèlerin yi ñu mun dem dem màggali si jàmm. ñu si jàng incha allah rabbi yàlla yàlla mën na ko yàlla def. Mm, ñu ngi lay sant ñun itam ci geneen wàll gi di la gërëm bu baax a baax ci nu nga nangoo tontu suñuy laaj Pape Ibrahima Senghor.